Mbalka ana wa Mar. ña nga fa. ñu ngi si jàmm. waaw waaw. yaram mi da tang tay de. waaw dafa tang luko tangal luko tangal ko tàngal. waaw. lamb lamb ji. waaw waaw. mais lutax ñu kiy la gis nga wacc ci géew bi. noy fokk ma wacc waaw. parce que sama rak ñoy beure ndaysan ñom Ousmane. waaw ñom mam djegan ndaysan ñom Sadio. ndaysan waaw waaw. ndaysan mais xam nga ne waa lamb ji ma nañ wi Thior. Wow, lamba du cahan, man ma koy wax. war na yàlla. lamba. ci deret la nek nak ya. ya. barke yàlla. amul mbeur bu temps fi opo man nag. Ya. amu fi. mbalka maak. déedéet amul. ñata nak nga am. mu munoo ko compter. bari na. jarga la jarga. Wow. waaw waaw. waaw ma la jarga. jarga. waaw sant naa yàlla ci lamba. sant nga yàlla. waaw. di ñaanal booy rek ñu def li ma def ci làmb non garaawul ñoo far rek boo bëggee ma jox la ko boo bëggee ma jox ko.